شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه leen jëf mbokki internet yi bàyyi xel Assalaamy TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ñeel wàccaayu màggalug Touba édition 2022 mbokki xibaar yi dañu koy dooreek nemeek nga xam ne président Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jiite coalition Yewwi Askan Wi amaloon na ko ci dëkk bu sell bi di Touba àndoon ak yeneen i kilifa yu bokk ci boobile coalition ñoom nag ñu demoon ziare Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides euh, nemmeeku ko waaye it euh, fetaliwaat couleur gi nga xam ne dox na seen diggante ak moom sàkku ci euh, sëriñ bi ñaan ginnaaw boobu le nemmeeku ki nga xam ne moom moo di Ousmane ko am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko bi mu génnee ci boobu le ziyaara ñu ànd teewlu ko. xali xalif wax na lépp ñun ñi ngi gërëm ginnaaw bu ñu sante suñu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam euh, nuyu njabootu cheikhul xadim yëpp jaarale nuyu bi nag ci ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yoon wi fi ne nii. muy Cheikh Mountakha di xalif général bépp murit waaye di xalif général bépp jullit ndax xalif généraux yi islam lañ fi toogal amuñu barrière amuñu frontière ziar ko ziar njaboot gi yëpp euh, ziar waa dëkk bi yëpp tamit li xalif wax daal tënk na wax ji mooy tey kilifa ki daf ñu wax lu am solo nee na dinaa yegg ak yéen fu moom mosul a yegg ak yéen mooy doog ñun loo xam ne dafa bokk ci jaar-jaaram ci expérience am ci loo xam ne bëgg réew mi moo ko taxoon ba tax ci jamono yoo xam ne engage jafe woon na ñi ko ñeme woon néew ndax ñi ko doon def sax dañ doon làqatu moom bokk na ci ñi engagé woon ngir réew mi kon loolu dox na ba àdduna delloo ko bi mu amee ñeent fukki at ak lu tegu mu dellu siwaat léppam mu jox ko yoon mu jox ko diine gi jox ko yoon wi léppam mu teg ko ci liggéeyu maamam kon loolu su ko waxee ci jotaay bu mel noonu ñun soññ la ci ñun ñu gën a góorgóorlu ndax réew lu koy defar dafay dox ci ñaari tànk yooyu day dox ci mbirum àdduna ñu koy wax temporel di dox ci mbirum àllaaxira muy spirituel ñaar yooyu mooy doxal réew kon ñun su ñu nekkee ci benn pàcc bi ñaar yi nag dàqantewuñu waaye bu ñu nekkee bu ñu gënee fës ci benn pàcc bi ñëw toog ak kilifa gu tol nii mu wax ñu loolu ci jaar-jaaram defe naa ñoo war a am dégg-dégg ci gën a góorgóorlu gën a farlu la ca des nag mooy gërëm waa Touba rek gërëmaat leen waa Touba waa département bi ci seen taxawaay ci réew mi ndax fa sëñ Touba tegoon tànkam ci bañ nooteel am dignité dara mënu koo yóbbu dara mënu koo jënd tey waa Touba fa lañ teg seen tànk kon ñu dellu gërëm leen bu baax a baax ci suñu tuur ak turu coalition bi yëpp mbokk yi ci nemmeek goo nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi amaloon nañ ko ci euh, dëkk bu seen bi Touba la ñuy desani ba léegi ndax euh, ñenn ci ñoom muy Khalifa Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ay leader lañ ci boobu boobule euh, coalition Ahmed ay Aïda Mbodj ñoom Déthié Fall ñëw nañ ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre mi nga xam ne mooy jiite comité d'organisation bu grand magal bu Touba bi ñoom it ñu ziare ko nemmeeku ko waaye feddali seen kóllëre ak moom rafetlu it jéego yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy def jëm ci yoonu murit ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi jëm ci euh, grand magal bu Touba ñu ànd teewlu Xalifa Ababacar Sall. la ñaanal parce que nit ki suñ ko sasee teg ko dara naam njort nañu njort lu rafet pour moom naam. am na des prédispositions pour def la mais na mu koy defee ak résultat yi muy jox il faut que ñun ñi nga xam ne ñun lay jëriñ ñu di la gërëm ak a sant ak a ñaanal manifestation la boo xam ni képp ku fi ñëw lu la jëriñ dong nga fiy jële parce que manifestation yaakaar la suñu maam sëriñ Touba moo ko fi liggéeyal askan wi liggéeyal ko umma bi liggéeyal ko réew mi ba tax na ku def effort tuuti dinga ci am sa wàll yàlla na ci yàlla ñëpp xej yàlla na ci yàlla ñëpp jëriñu ñuy wax ni rekk màggal gi c'est un moment de communion su fekkee dindi nañu njëriñ ci aspect religieux bi li nga xam ni moom lay jëriñu réew mi kenn dootu ko naatable donc mu doon loo xam ne ñun ñëpp on a intérêt à que mu baax moo tax tànk yi aussi tànku encouragement la la yow ak comité d'organisation bi yàlla na leen ci yàlla may ndam comme ndam yi ngeen weesu ah di sàkku ñaan nag comme que ñun ay politique lañu dafa am ci lu ñu génn ñu gërëm la sant la parce que biñ fi mujjee di sumba li ñuy sumba dañ la sàkk woon ñaan pour que coalition bi dëgër coalition bi yaatu coalition bi am ndam ñaari scrutin yi ñu génn yàlla defal nañu ci lu weesu suñu njort ba léegi mbokk yi ci fànn googu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre moom rafetlu na bu baax a baax jéego yi nga xam ne euh, kilifa yi def nañ ko te bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñëw ci Touba ziar ko nemmeeku ko waaye it feddal seen kóllëre ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bu sell bi ak kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre rafetluwaat bu baax a baax kóllëre gi nga xam ne dox na seen diggante ak moom ñu ànd teewlu ay kàddoom kóllëre gu yaatu kon ñi ngi rafetlu baax tànk yi ndax soxna ay dëmbooj mi ñëw na fi ëpp ñeenti fan indi fi teraanga yu bari te wax naa ko lu ëpp fukki at ak juróom màggal ak kore tëbësu jot mu xotti ay yére indi ko boole ko teraanga kon mu nekk ci biir nguur ak mu ñàkk nekk ci biir nguur xàmmewu ko ndax li ñu boole mu ëpp loolu ñu seq kóllëre gu yaatu mu am ak cofeeru jàpp gu dëggu ci moom boo xam ne ñëpp xam nañ ko di nuyu cheikh yu mu bàyyi ko ci suñu mbokk suñu xarit sëriñ Moustapha Sy di ko yóbbantam nuyoo ak cant ak ngërëm ndax suñu kóllëre la ku baax la gu kóllëre gu yàgg di ñu ko nuyu ñu ko bu baax a baax di nuyu Déthié Fall moom mi itam nga xam ne ñëpp xam nañ ni deme ci kër gi di ko sant ci taxawaay ak yitteem yàgg na màggalu suñu baxaat at mu jot mosu koo manqué muy ku jàmbaare ko xam ne ku gëm li muy def la Ahmed Aïdara mi moom maa ngi koy tooñ léegi ma ne ko xanaa politique bee la ndongo waaye am na jamono daanaka saa su ma nekkee Ndakaaru bi set ma ma nga sama kër yaakaar naa cofeel gi mu am ci man adduna sépp xam nañ ko bari waa na lool ñoo xam ne ci moom lañ daa jaar sax ngir agsi ci man ngir ak cofeelam goo xam ne da koy feeñal ba ñëpp xam ko di nuyu ñëpp di leen sant bu baax ci délégation bi nga xam ne ñëw ngeen ànd ak ñun màggal gi kàddu yi du gudd kàddu yi cant ak ngërëm rek lay doon ndax li xalifa Ababacar Sall wax lim ci mën yëkkati ci kàddu la wax waaye la ci biir moo ëpp mbokk yi ba léegi ci xibaar yi communauté lébu gi nga xam ne ñoo nekkee ci Dakar àndoon nag nday ji réew yi jaraaf ci njiital ki nga xam ne moom moo di Pala Mbeng ak Maodo Malick Ngom àndoon nag yeneen kilifa yu bëri ñu ñëwoon nag doon ziara Cheikh Mahamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ginnaaw bi ñu ñëw ci ki nga xam ne moo jiitee comité d'organisation màggal gi di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ziar ko daal di feddali kóllëre gi nga xam ne moo dox ci diggante communauté lébu ak communauté mouride ñoom nag ginnaaw bu ñu waxtaanee ba noppi am na kàddu yoo xamante ni ki nga xam ne moom moo di Pala Meng yëkkati na ko ci kanamu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre ñu ànd teewlu ko. ñu ngi lay ñaanal bu baax jàmm Mbacke ñu ngi lay ñaanal wér Mbacke ñu ngi lay ñaanal sutura Mbacke yàlla na ko yàlla yokk waaye daal. xamul xaw ma ku xamul li muy def waaye Mbàkke yow de xam nga li ngay def bu wér nga xam li ngay def réew mii ñu nekk nag Mbàkke nga bari fi soppe lool kenn musulaa dégg nga wax wax boo xam ni ku ko dégg doo ko rafetlu loolu doy na sëkk waaye nag kuy sa maam Serigne waaye papaaya du jur kaan yi mbakke yàlla nga fi yàgg bokk lébu yi ñëw nag dañoo ñëw ngir sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ne nañu ko santale ne nañu ko santale yàlla ñun ne dañu ne bu ñu toogoon fa ñu toog ñun ne dañu ne bu ñu toogoon fa ñu toog di ko ko santale ko ko dana ko gis naam dana ko gis naam waaye nag fii waaye fii la dàqee moo tax ñu ñëw moo tax ñu di sàkku lii ñu yor nag lii yor nag di ndombu tànku lébu di ndombu tànk lébu di ak ndey ji réew di ak ndey ji réew wax na bërki démb wax na ne ba indépendance amagul ba tey ne ba indépendance amagul ba tey musuñoo gis musuñoo gis ndey ji réew ndey ji réew bu président de la république recevoir ak délégation bu président la république recevoir ak délégation la daan am daal la daan am daal mooy da ngay nekk ci délégation mooy da ngay nekk ci délégation bi coutumière ndey ji réew bekku ci doora dem ci délégation bi waaye ci moom nag la yàlla dogalee premier ndey ji réew ak son délégation reçu par le président de la république tey jii nag jàpp naa moo dal fii ci moom Serigne Abdou Khadre rafetlu na bu baax a baax jéego yi nga xam ne communauté lébu bi def nañ ko ñu ñëw ci euh, Touba doon ziara waaye doon feddali couleur yi nga xam ne dox na seen diggante ak yoonu murit ci wàccaayu màggal gi loolee nekk nekk na jéego yu rafet lool yoo xam ne kàddu yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre la. ñu ànd teewlu ko. ñuy teg nuyoo bi ci loxol sëriñ Malick Malick sëriñ Maodo malik Ngom ak sëriñ Pala Mbeng ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp bu leen xasee tudd rek mën nañoo yóbbaale ñu ci des ñëpp. di rafetlu kàddu yu baax a baax di leen dalal jàmm li alxuraan santaani rek wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu biha ahsana minha aw rudduha kon buñ leen mënta jox nuyoo ba bu yayoog bi bu rafet bi ngeen ñu jox ñu dellowaat leen nuyoo boobu di sant bu baax a baax ci lii nga xam ne def ngeen ko te yàlla def mais mujjee ndakaaru ngeen defoon délégation bu mag ñëw fa àdduna rafet lu ko walla képp ku bëgg lu baax fasanteeg man kóllëre te kóllëre googu ngeen fasanteeg ma it ngeen di xam ne nu ngeen ko jàppale jàpp nañ ko nu ko ëpp ndax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan ne jullit mbokkam dëgg-dëgg mooy ci mbokk diine lislaam kon ñu xam ne li ñuy wax yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu kon li tax suñu borom bindi xeet yi wuutale ko looloo tax waaye nag inna akramakum indallaahi atqaakum ki gënal yàlla rek mooy ki gën a ragal yàlla foofu la ñuy gënantee waaye annaasu min jihati tamthili ak fa u abuhuma aadamun wal ummu hawaau fa in atayta bi faxrin min zawi xasabin yufaaxiruuna bihi fa tiin wal maa u mal faxru illa li ahli ilmi innahum anil huda liman istahda adillaahu kon ñuy rafetlu bu baax a baax jéego yii ngeen def te Serigne Touba dafa masoo wax ju am solo booba ay mbokk jullitam kilifa gu mag moo fi yónnee woon délégation bokk moom lislaam ji mu ne ko bu ngeen demee nee leen ko yaar rekk fi nekk inna man moom ne ixootu ak inna cheytaan lakum aduwun mu ne ko inna moom ne ixootu mu ak tey la inna cheytaan lakum aduwun ak nax la mu ne ko waaye tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci inna shaytaan lakum aduwwun mënu ko yàq kon nag seen délégation bi nga xam ne koo gis xam ne ne fonk ngeen fi ngeen jëm. mbokk yi ku ne màggal ne bernde ku ne bernde ne dem ci marché bi ngir fàggu fa li nga xam ne moom moo jëm ci euh, taalibe yi ci waajal leen lépp lu jëm ci fànn googu moom moo tax jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk. wàllum njënd ak di ministre du commerce euh, Aminata Assome Diatta moom ñëwoon na fii ci Touba doon nemmeeku marché bi ndax mbooleem li nga xam ne moom la taalibe yi teewoo ndax am na fi waaye njëg yi ndax ñu ngi te ak moom ginnaaw boo xam ne nemmeeku na marché Ocass bu Touba xelam dal na te it nee na lépp loo xam ne taalibe dañ ko yittewoo ci wàllum euh, produit yi euh, baaxe ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe ci màggal gi lépp dina yebb incha allah ñu ànd teewlu kàddu yi ministre Aminata Assome Diatta. li ñu gis euh, dal na suñu xel ndax xam ngeen ni mission bu njëkk bu ñu dénk ministère du commerce moom mooy fexe ba ci marché bi ñu fekk fa euh, produit euh, yu ñu soxla kon tey bu ñu ñëwee ci marché bi gis ci quantité yi ñu gis ci marché bi dafay dalal suñu xel. ndax ci lënd ba la ñu jógee def nañu benn réunion ak commerçant yi waa tuuba ak yi nekk Dakar pour. waacaay euh, màggal bi donc mu amoon ay jafe-jafe yu ñu foo signalé woon mu am tamit ay mesures yoo xamante ne jël nañ ko mesures yooyu nag mu bokkoon ci euh, pomme de terre importée bi nekk par exemple ci port bi ñu bàyyi ko mu dugg si euh, bu ko defee bu ñu am benn problème donc démb rek bu ñuy def suñu évaluation ñu ngi nekkoon si 750 tonnes boo xamante ne jóge woon na dakaar di ñëw fii ci Touba donc ñëw nañu tey aussi constaté gis ni wax dëgg yàlla commerçant yi ci seen bopp wax nañ ni produit bi mu ngi ci marché bi et amuñu benn jafe-jafe te prix yi tamit mu ngi euh, nekk prix yoo xamante ne yu acceptable produit yëpp euh, ci fu mu toll nii doy na muy su produit surtout yi nga xamante ne moo nekkoon problème fan yële moo nekkoon oignon bi oignon bi am nañ lu tolloo vingt cinq mille tonnes boo xamante ne mu ngi ci euh, fii Sénégal donc boo xoolee ci pour màggal bi liñ ci soxla mu ngi nekk trois mille tonnes donc am nañu quantité bu doy te commerçant yi ñu ngi dem jëndi et donc amul benn jafe-jafe en tout cas ministère du commerce mu ngi nekk toujours seen wet képp ko ci mëntul am jafe-jafe rek ñu gungee la ba nga xamante ne li nga soxla dina mën a agsi suñu beneen mission bi justement euh, moom mooy fexe ba njëg yi aussi yomb euh, donc suñu mission bi bu njëkk mooy fexe ba marché bi déjà mu nekk bien approvisionné ndax bu produit bëriyee ci marché bi rek prix du yokk maintenant ñi nga xamante ne yokku nañu prix te mu nekk ci produit yoo xamante ne fixé nañu seen prix dañuy sanction bi dana gën a métti te loolu euh, service yi vraiment dogg nañu ci képp koo xamante ne wàcc nga yoon ci lu jëm ci prix yi sanction bi nga xamante ne moom lañ lay teg dina nekk sanction bu diis. ministère du commerce beneen rôle bi ñu ko dénk moom mooy aussi fexe ba produit yi nekk ci marché bi mu nekk produit de qualité kon. Euh, bi ñu waajee bi ñu jubloo ci màggal gi dañu renforcer service yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey fii ci région bi rawatina nag ci département Mbacké bi donc service yooyu ak agent yi nga xamante ne moom la ñu leen renforcer ñu ngi fii ci marché yi di xool produit yi fexe ba bu ñu jaay consommateur bi lenn loo xam ne mun na ko jural lorange kon liggéey googu ñu ngi ciy def liggéey gu ama am solo ñu ci encouragé encore une fois tous les agents. mbokk yi li leen loon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moo ñeel wàccaayu màggalu ko Touba gi ñu tàggoo yéen ci ziar yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides kilifa yi di bàyyeekoo fu ne ci biir réew mi ci bitim réew. kilifay diine kilifay aada kilifay politique kilifay cosaan ba ci taalibe kenn ku ci nekk ñëw di ziare sëriñ bi feddali sa kóllëre ak moom waaye di yees yeesluwaat di fas yéene ànd ak moom li nga xam ne moom moo di bisub cant bi nga xam ne cheikhul xadim moom la woote ngir ñu santale ko yàlla suñu borom santaat leen bu baax a baax gërëm leen ci teewlu gi ngeen ñu doon teewlu ci Assalaamy TV dig leen daje allah ci yeneen xibaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa